Georges sajo maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. yow yaay njiital FAFA di fédération des acteurs de la filière avicole tey jii ñu yëgal ni dañuy yokk njëgu dund li nga xamante ne moom mooy ginaar gi ni kon téeméer boo jël fukki ya dañu ko ci teg loolu ban jàngat nga ci am. yokkute gi tamit fañ nga jàpp ni foofu lañ ko teg. waaw maa ngi lay gërëm en jàngat boobu bi mu ci teg mooy que ñun dañu yaakaar ni rek ay nit bu ñu nekkee di liggéey entre ñoom war nañu mën a jëflante jëflante bu rafet jëflante bu rafet mooy bu yu ni amee maanaam ñoom dañu ne

Mhm. donc bu la joxee kuréel bu melo noonu da nga war a toog lépp problème bu ngeen munti am da ngeen war a toog foofu ngeen saytu ko xool na ngeen ci euh, mhm. Mhm. loolu dañu génnee benn bataaxal jox ñu ko ajuma vingt huit janvier bi passé. jégal jébal ñu ko nañu lundi premier février affaire bi day dugg en ne leen nag loolu du ci dal parce que ay nit bu ñu nekkee di jëflante y a un ñun foofu lañ ko teg. bu fekkente ne waaw bu fekkente ne wéy nañu nag ci kii bi ci dogal bi lan ngeen di def mënuñu lu dul naxarlu ko mhm. wax aussi ñun aussi dinañu xool ay pexe yu ñu teg pour que lu mel noonu ñu bañ ko ñu bañ ko nangu parce que dafa yomb trop nga xëy wax li ngay wax ne waaw da yokk ba pare teg doo ci teg baat loolu moom mënul nekk après tout ci dëkku démocratie la ñu nekk benn mhm. Mhm. ñaar ñu ne leen contexte bi bi dëkk bi di dund jafe-jafe économie bi koom-koom bi doxul dara doxul nit ñaa ngi feebar Covid bi mi ngi fi ñu ne déet ne waaye ñu ne grippe aviaire bi dugg na Sénégal te feeñ na ci ñaari foyer donc contexte bi dafa warul dafa jaaduwul ay nit yu ne seen bopp ay sénégalais la ñu ne ay entrepreneur sénégalais la ñu di yokk. Mhm. du woon du woon moment yi pas opportun donc loolu moo tax ñu koy naxarlu bu baax. surtout mhm. que ñun am nañu ba nga xam ne war nañ ko mën a waxtaanee. te ñoom mhm. ñoo waroon njëkkee lu ni mel donc comme defuñu lu mel nag ñun tamit ñu wax ñu wéy wax ak yi wax na ne loolu duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg donc li gën. moo ñu toog. ci loolu lan moo ci paaru état waaw li ci li ci état mooy que xam nga filière avicole bi dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko libéraliser. Mhm. donc comme libéralisation boobu am na ñun li ñu yaakaar ni rek mooy bu lu mel noonu bu amee ñoom ñu toog wax mais li ci wàllu état bi aussi mooy mënul toog seetaan aussi benn minorité di écraser une majorité. Mhm. loolu loolu loolu loolu ko nangu. donc sànq maa ngi lay wax ci français ne la li nekk ci ay éleveurs bëri na ñi ciy yëngatu ay jigéen ay góor ñi ciy yëngatu bëri na lool. Mhm. foo fekk foo nekk Sénégal yaa ngi gis nit ñi bu ñu yarul ay ginaar ñi ngi yar ay xarak ay yu mel noonu seen i kër. Hmm. Euh, loolu def na ko mu nekk activité ba nga xam ne c'est extrêmement rentable dafa dafa dafa lay jur koom-koom bu bëri day jur xaalis. Hmm. maa ngi dégg ci wàllu wi directeur général adjoint bu NMA gis ni kon yokk li bokk na ci li ko waral mooy marché mondial céréales bi nga xamante ne kon ah, jamono ji dafa jaxasoo. waaw lu mu wax noonu mën na ne bu loolu tamit bu amee ñun li ñuy wax ni rek mooy lu mel noonu bu amee. ñoom waruñu jël une décision bu unilatérale maanaam toog fi ñu toog toog seen i bureau ne léegi nii dañuy yokk parce que affaire yi dafa yokk ci marché mondial hmm. mais bu yokkee yokk a dul yokk dañ hmm. toog waxtaan ak nit ñi hmm. parce que nit ñi amuñu xaalis bu ñu jëndee parce que risque bi mooy lan mooy ñu dugal ñu ci benn spirale inflationniste bi nga xam ni lépp dana yokk yow di nga xaalis ba pare doo am loo doo mën a jënd wala parce que njëg bi du ko mate waa léegi li gën comme am nañu cadre bi nga xam ne mooy cadre bu légal bu tudd inter bu tudd IPAS muy interprofession de l'agriculture Sénégal. Hmm. li gën kay moo ñu toog ci cadre boo waxtaan parce que cadre bi loolu moo ko sañ. Hmm. Hmm. loolu loolu loolu mooy minimum. benn ñaareeli ponk bi mooy. donte Sénégal mi ngi pour céréales yi ñu wax noonu yëpp fa yokk dëgg la mais Sénégal day béy céréales ñoom leen déggoo la ñuy teg pour ñu béy céréales yooyu Sénégal pour ñu jënd ko Sénégal bokk même bu nekkee njëg bi motul wala boog li ñuy soxla ci céréales ñoom ñëpp doy lu Sénégal mënul mënagoo ko béy ku ci nekk boo jënd di boo jëndee cent ci biti hmm. mais jënd boo da ngay jënd quatre vingt ci biti jënd jënd dix fii wala nga jënd vingt fii hmm. mais noonu la ñuy booster benn filière noonu la ñuy booster dara koom-koom bi suñu koom-koom bi jóg mais bu ñu xëyee lépp ñu dem jegaane ko mais c'est normal que cours yi bu yokkee ci marché mondial mu yokk fii ci biir hmm. dañuy xam ne aussi lu mu yokk yokk ci biti waaye ñun sénégalais ñoo koy jënd donc li gën mooy ñu toog ñu waxtaane ko yokkute yokkute njëgu dund googee ban jeexital la mën a am ci njëgu ginaar gi ci Sénégal waaw logiquement kay jeexital bi mu mën a am ci njëgu ginaar bi waaye comme dañu ne dix pour cent la ñu yokk waaw dañ ko ñun tamit dañuy yokk maanaam. <laughs> maanaam maanaam ginaar ba nga xam ne yaa ngi ko doon jëndee ci buntu poulailler bi yaa ngi ko doon jëndee deux mille francs hmm. nga yokk nga jënd nga yokk mu ñu yokk ko mu nekk deux mille cent wala deux mille deux cent. Hmm, loolu wala deux mille cinquante mais xam nga loolu dafa nekk loo xam ni dafa rafetu parce que ñun aussi dañu am sunu wàll ci dëkk bi te dañ ko dañ ko dañuy te yaakaar naa ne ñu ngi koy def nu mu nu mu waree. Mhm. mu mel ni seen secteur bi lu mooy yokkute njëg dund googu yemu ca ndax am na grippe aviaire bi nga xamante ne nemmeeku nañ ko ci wenn foyer ci Thiès ak tamit ca kon euh, parc national euh, bi nekk ca ji euh, ba am sax ay pélicans yi nga xamante ne kon daal dinañ cee ñàkk seen bakkan loolu nag naka ngeen ci fas yéene jàmmaarloo ak loolu nga xamante ne lu métti la rawatina ngir ngir yenn yarkat yi. waaw loolu lu métti la mais ni ci fas yéene jàmmarloo rek mooy topp exactement de manière scrupuleuse mooy li ñu autorité sanitaire yi wax. Hmm. yu mel noonu bu amee boo commencé am ay mortalité nga déclaré ko nu mu gën a gaawee bu ko surtout pas ñu bañ ko nëpp. parce que boo ko nëbbee mën nga yóbbu feebar bi feneen. Hmm. donc loolu ñu koy naxarlu lu ñu métti la trop parce que aussi ay bakkan la yu ay njanaaw la ñu mais aussi a du ma ne ñu koy def du ma ne am na ñu ko dul def waaye lu mën a nekk la léegi nag yu mel noonu bu amee il faut nit ñi di teel a jël seen motuwaay di respecter exactement li ñuy wax ay mesures de biosécurité di respecter li leen vétérinaires yi wax consignes sécurité sanitaire yi ñuy joxe ak autorités yi donc c'est extrêmement important que nit ñi respecter jëfeen comme ni ko autorité sanitaire yi waxee. Mm-hmm. Mm-hmm. lu mooy lu mooy loolu rek day indi yeneen problème. Mm-hmm. gannaaw yokkute gi ci njëggu kon dundub euh, lii di kon euh, aliment bi euh, am na tamit grippe aviaire yokk ci sax jamonoy mbasum Covid 19 bi nga xamante ne métti na lool ci secteur yëpp mu mel ni seen filière jamono ji lu muy dund war naa métti est-ce que du bokk ci lu koy gën a faagaagal. waaw dina bokk ci lu koy gën a faagaagal waaye nag ma yaakaar ni rek comme ni tubaab di wax à toute chose malheur est bon. Hmm. ñun dinañu permettre ñu gën a defaraat suñu filière gën a defaru. gën a yëpp gën a gën a taxaw si suñu liggéey mais aussi surtout ak en face ak autorités yi. Mm-hmm. pour que filière bi fi jóg fi toll nii mu mun ko dépasser parce que li li gën a métti si ñun mooy surtout mbas bi grippe aviaire bi dina jeex mais li gën a si mbas bi li gën a mooy mbas bi parce que kenn xamul kañ lay jeex loolu mooy mooy problème bi. Mm-hmm. mais di wax rek encore une fois ñun on est en phase ak autorités yi. Mm-hmm. ñu ngi respecter consignes sanitaires yi ñu joxe. et puis je pense que dinañu génn ci euh, grippe aviaire bi mu gën a gaawee parce que filière bi quand même am na assez de résilience war na jógaat rapidement. bëri ay réew bokk na ci Gambie Mauritanie Mali ak bu mujj sax Burkina Faso jël seen dogal ne kon dañuy dakkal lépp lu jëm ci kon jéggaane ji ginaar bi jóge ci Sénégal dugg ci seen réew loolu ban njeexintal ci wàllub koom rawatina lay am ci yenn waaw dina yàq parce que fi toll nii gars yu bëri ci pour ñu toj ko def ko ay poussin wala ñenn ñi dañu doon yóbbu foofu ay poussin carrément wala ñenn ñi sax di ko yóbbu ginaar loolu am na c'est vrai que dina yàq lu parce que ñooñu activité boobu day mujj taxaw parce que ils vendaient à l'export hmm. léegi nag bon mais dañ koy mën a comprendre parce que ñun du amit 2005 lu ni mel noonu comportement bu mel noonu la sunu état amoon donc loolu dañ koy mën a comprendre dañ koy war mën a nangu aussi métti na gaa hmm. ba nga xam ni jëlee fi carrément grippe aviaire bi ak mbas bi comme ça ñun aussi ñu mën a jëflante encore ak dëkk yooyu noonu parce que aussi bu dul dara am na hmm, yooyu quand même bu yàggee na liggéey bi mën na bañ a gën a yàqu fii surtout seen côté. waaw mën na sooxe mën na mën mën na sooxe bu baax a baax waaye nag euh, ñu ngi sant yàlla bu baax parce que gars yi mën ñu ngi góorgóorlu te filière bi xaw na am na dëgërlaay bi nga xam ne war na ko mën a permettre rapidement bu affaire yi jeexee mu mën a jógaat. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Eh, ba xam jamono ji tembe ñii di way jëfandiku yi maanaam consommateurs yi mën nañoo tiit. waaw man ma leen di dalal rek di leen wax ni tiit bi jaru ko c'est vrai que li ñuy dund métti nañu ñun ñëpp et que bon ñun aussi on est ma yaakaar ni rek xaw na responsable lañu ba nga xam ni yenn yi duñ ko def duñu dugg ci yenn kii donc gars yi dinañu respecter consignes sanitaires yi ñu joxe parce que loolu moo ci ëpp solo ñu bàyyi aussi di dem di dugg ci poulailler di génn dugg ci génn yooyu aussi ñu koy moytu parce que aussi ay conseils yi nga xam ne aussi autorité sanitaire yi dañ ko joxe donc buñ ko joxee rek dina grippe aviaire bi dina fi gaaw a jóge mhm. mais aussi ñu ñaan aussi suñu borom génnee fi mbas bi pour ñëpp comme ça ñun ñëpp aussi ñu mën a profiter dellusiwaat suñuy activité gis nañu njaayum ginaar gi ak sax di ko yar bëri na lool léegi ñu cee yëngu ci xayma ñaata la ñu doon ci Sénégal euh, ñi nga xamante ni ñoo cee yëngu ci secteur bi waaw xam naa dina ma jafe nag ma wax ko ci ci olof waaye normalement d'après ñun information yi ñu yore nee nañ ñu par exemple éleveurs yi ñu ngi toll ci ñiy def ganaar rek ñu ngi toll ci ay deux mille cinq cent et quelque ñu yaakaar ni tamit. ñaari junni ak juróomi téeméer. waaw Sénégal yëpp waaye yaakaar nañ ni ëpp na loolu. Mhm. parce que boo xoole bu baax Sénégal kër bu ne boo xoolee ci kaw toit bi yaa ngi fa gis wala wala wala kii pour xar. Mhm. wala enclos mouton. Mhm. wala wala nga gis ko ci ginnaaw kër yi donc euh, ñi ko ñi ñiy élever ginaar bëri na parce que tout simplement daf le di permettre ñu ñu mën a mottali seen weer bu dee. donc euh, ñi ci yëngu bëri na trop trop trop te bu dul dara aussi aviculture kese euh, gaaw na indi xaalis gaaw na indi ko may waxaat rek encore éleveurs yi que du ginaar kese nag.

Hmm. pour xam-xam boobu mooy nga dem ci centre de formation yi CNA de Mbao mi ngi fi docteur Diouf moo koy jiite am na tamit ay cluster avicole yu fi nekk cluster aviculture yi nga xam ne yenn ñi ngi Dakar yenn ñi ngi euh, benn mi ngi Ziguinchor hmm. te loolu IPAS moo koy jiite te yooyu yëpp ay formation yu ñu def la yoo xam ne dafay génne dafay jàngal nit ñi xeetu liggéey yi am ci biir aviculture yëpp du hmm. yaroom ganaar bi kese mais même ka nga xam ne aussi mu ngi ci marché yi di transformer ganaar bi di ko dindi di ko suqi di ko buti di ko liggéey di ko jaay client yi ñooñu tamit dañ fa am formation yoo xam di wax ni rek baax na nit ki activité bu mu mun munti def mu uti xam-xam mu dem bu ko jaree mu dem uti ko. Hmm. Euh, am na organisation bi ci war tamit ngir gën a réguler secteur bi ci wàllub njëg yi ci wàllub dundin yi ak euh, lëkkaloo bi ngeen ci seek ak état bi tamit nu mu demee. waaw suñu lëkkaloo ak état bi ñu ngi koy rafetlu parce que état bi permettre nañu tey ñu am euh, lu ñuy wax IPAS mooy IPAS mooy interprofession de l' aviculture sénégalaise. Hmm. donc interprofession boobu kuréel la bi nga xam ne ñëpp ñi nga xam ne dañuy ñu ngi ci. nga xam ne dañuy toj ne ni di ko def poussin ñi ngi ci produire éleveurs mooy ñun ñi ngi ci biir ñi nga xam ne dañuy def prestation de service mooy vétérinaire ak ñoom ñëpp ñi ngi ci biir donc kuréel la ba nga xam ne moo loolu mooy liggéeyam loolu moo ko moo tax ñu sànc ko te lii ñu permettre ñu sañ ko état bi aussi à travers la loi d'orientation agro-sylvo-pastorale. mu ngoog jërëjëf kon bu baax ñu ngi lay gërëm Serge Sadio. maa ngi leen gërëm leen sant. fàttali kon yow yaa njiiteel njiital FAFA di fédération des acteurs de la filière avicole. merci.